ñaari membre Yewwi Askan Wi jote mu mel na Khalifa Sall maanaam Barth ak aussi Ousmane Sonko boo radicalé faral Ousmane Sonko est-ce que tamit taxawaay boobu nga xam ni dégg naa ci poste bi la jox mooy CMA conseil euh, de médiation et de l'arbitrage est-ce que boobaa tamit moo xaw a mel na est-ce que poste bi aussi ak ñetti ñetti est-ce que jéngoo tamit ñaari nit nga waxoon de léegi yaa ngi ci ñetti nit

Euh, ñetti nit nga wax ñaar ñima ci ñima bokal instance man lay tudd muy Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ci jamm lañ nek léegi def rekal na ni amna ci yeen ñu nekkon conférence de presse PRP ba ngeen démé lén dong ngeen fa dégg nu ñuy def ba Ousmane Sonko ñu génné ko des griffes de Macky Sall parce que gis nga la priorité ci politique la gën a am suñu priorité wi mooy fexe ba Ousmane ko kenn du ko faagaagal li ci des yëpp amagul solo dinañ ci am dinañ ci yegsi faruma damay soutenir ki may soutenir du politique moo ñu boole daa ci milieu politique lañ daje mais dafa am benn sentiment boo xam ne boo dee ndey mooy li ma dal ci criminalisation de de de de du viol c'est-à-dire que me me a xeex ci instance bu nekk ci violence faite aux femmes mais je ne sais pas ci sama doom sama parce que dom bu góor moo metti ci c'est surtout nag bu ñu ko utiliser à des fins politiques en réalité Farouma, faruma jéemuma impartial Farouma, damay défendre benn nit les xam ne leer na ma dañ ko en âme et conscience damay défendre benn nit boo xam ne xam naa li mu liggéeyal démocratie ci Sénégal damay défendre benn nit boo xam ne xam naa li mu liggéeyal coalition te loolu xalifa sàll moom ma ci jiitu wax naa leen ko léegi ngeen tàggoog moom PRP muy défendre Ousmane Sonko parce que ku nekk xam na ni li xew lundi neexul kenn ci pour d'appel lii bëgg a xew loolu askan wi lañuy ñuy interpellé neexul fenn encore que CMA boobu ma la doon wax ci locales yi rek la mettre une ko sax en œuvre ci législative té buma ñëwé ci loolu législative amul CMA de benn rek la ñu jël le ko muy Khalifa Sall man Ousmane ak keneen wax nañ ñu ni président Macky Sall bëggul woon Ousmane Sonko dem assemblée nationale bëggul woon ay dem assemblée nationale bëggul woon Habib Sy dem assemblée nationale bëggul woon Malick Gakou dem assemblée nationale bëggul woon Déthié Fall dem assemblée nationale demuñu itam pourtant Khalifa yore woon list bi mais kenn merewu ko ci ñun ñëpp dañ di président Macky Sall moo ñu teree dem te nag dañoo jël CMA ak commission d'investiture ak lépp jox ko xalifa muy buur di bimmi moo bind moo dugal moo defar moo def yëpp mais nanguwuñ ko sikk nanguwuñ koo wax man toog naa doon def médiation entre Ousmane Sonko ak benn nit bu bokkoon yeewi askan wi bi ma leen di jubale kooku dafa commencé ni ko yow Ousmane merewuma la xalifa laa mere mun ko mun arrêté maire man ko waa man ma duma fi toog parce que man duma toog fenn ñuy attaque xalifa xalifa ñun la doon liggéey te ñoo ko jox carte blanche donc lu mu def dañ koy assumer ñun ànd gor boobu la ñu ànd élage Hadj te wax naa la ko pas plus tard que y mooy moins de deux heures Khalifa toog na di massawu Ousmane di ko défendre te nii may wax na askan wi jóg noonu lay woowee askan wi pour ñu jóg. ok man man xamal xaw ma tamante de moom mooy mooy dañ lay tooñ. voilà foofu foofu itam heureusement que tudd nga ko parce que ñiy nettali Khalifa. dañ koy jéem a wax naan ko wuy Ousmane Sonko nee na yow ak Karim ak Nangam som ko waxul loolu Ousmane ko li mu wax daf ne te loolu Khalifa Sall waxaat na ko léegi kan moo demoon ca conférence de presse ba tudd Khalifa Sall newu leen ñett benn ñetteelu ñetteelu victime du fi am xalifa Sall daf ne man victime laa Karim victime la ñetteelu victime bi na Sénégalais yi jóg taxaw bu mu fi am waaye yéen ngeen bëgg ni Ousmane Sonko daf ne moom du Khalifa Sall lu Karim rek kon nag diw ak diw dañuy def dàngam noo waxul loolu ñetteelu victime bi la wax daf ni dañoo may Macky Sall toog mu daal di faagaagal diw faagaagal diw man nag du ma ñetteel bu buy faagaagal noonu la demee